ñàkk kaaraange bi doon tulleeg male ci réew mi loolu nag ñàkk xëyum ndaw yi moo ko waral bu ñu sukkandikoo ci waa ji ñu fekk ci Patte d'Oie Alioune Ba. insécurité bi man ni ma ko gisee sous-emploi bi ci la bokk réew bu fekkente ni bon dañ ni quatre-vingt-seize pour cent yëpp ay jeunes lañu wala quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay jeunes lañu te liggéey bi taxu koo demee noonu am na lu ñu teg seen loxo vraiment bu insécurité day daal di ñëw taxaw dugg si quoi léegi nag euh, am na si yoo xamante ni moom c'est du banditisme. ak li tamit daal dina gracier ci lu yàggul dara ñenn ci ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw loolee doon lu neexul benn yoon kii di Jean Pierre mi ñu fekk ci Grand Médine. je suis pas d'accord pour ñuy gracier koo xam ne ne criminel la jaruñu ko gracier parce que boo ko gracier bu génnee tamit di def la même chose man moom de préférence bu doon bu ñuy gracier ñu gracier ñoo xam ne ni tuuma la wala maanaam ñoom seen peine gënoon na léger daal mais pas ñuy gracier koo xam ne criminel la. Aliou Ba jàpp ne grâce présidentielle boobule justice moo ci tànn ñi ñu war a bàyyi laata laata président bi di ci àddu. grâce présidentielle moom loolu yàgg na fi président am na ci droit. te aussi tamit man ni ma ko gisee ak ni ma ko xalaatee di càgg président mooy seet ñu ko neex rek génne leen mais justice moom mooy seet ñi nga xamante ni gracier daal war na ci ñoom ça dépend bon erreur moo leen fa indi wala daanaka purgé nañu seen peine ba nga xamante ni lañu fa dese bariwul te gis nañ si prison bi tamit amuñu benn désordre boo xamante ni nu ngi ko fay semé wala indiscipline voilà justice mooy gracier jaarale ko si loxol président de ñàkk kaaraange bi doon na lu am ci réew mi rawatina fii ci ndakaaru ci kaw loolu événement bu jot ñeen ci defkatu njombe di génn prison mu des a xam ana lan la victime yooyu wala seeni famille di réagir mu nekk lu doy waale ci kanamu askan wi